asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki téléspectateur Equivox TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen tey nag ah, fi ma toog wala ki ma jàkkaar la mu yaakaar naa ne ah kenn du ne guléet wala lu tax pap Thialis Faye defe naa ne yàlla dogal na mu nekk sama DG ba tey sax DG laa ko wele parce que yàlla def na ñu seq lool ci liggéey mu yore Leewtoo production di ko doxal di benn label boo xam ne ci côté média ñu ngi liggéey lu rafet macha allah mais tamit di taxawal ay combat tey nag ñu seet si ko laaj si ko suñu suukaru koor yàgg maar parce que ndaxum ganaar waxaale say soxla du mën a ñàkk man foofu laay njëkkee balaa may dugg ci leneen DG maa lay ziar. ñu ngi lay ñu ngi lay di la nuyu. di nuyu di nuyu amaat kii yi nga àndal techniciens yi nga àndal. du nuyu internautes yi ak abonné Equivox yëpp du nuyu seen patron du nuyu bépp amateuru lamb. mbaa am nga jàmm. waaw alhamdulilah ñu ngi sant suñu borom. naka koor gi mbaa métteegul. non pas du tout xam nga kooru Dakar moom dafa ne ah. jàmbat kooru Dakar naan koor gi daa métti de. ah ñooñu mooy loolu bëri na fi nag. ay ñàkk dañoo xiif rek. waaw mais vraiment ku gis ni kooru Tamba Matam. waaw Fatick. waa nga xam ne ak kooru Dakar bokkuñu. ah parce que raison yi booy xoolal ñooy gën a tàng loolu la yàlla dogal te ñoom dañ koy dékku di woor mais DG euh, bu mu ñëwaatee ci Leewtoo production si boppam yaakaar naa ne actuellement gis nañ liggéey bi macha allah mu ngi jaar yoon mu ngi gën a tegu ci yoon di gën a amélioré wu euh, loolu loo ñu si mën a wax. waaw mais si mën a wax mooy li nga constaté rek comme ni ñu ko constaté si yeneen site yi parce que aussi liggéey boo gis à un moment day gis mu am changement parce que loolu la liggéey mënoo jékki-jékki lépp nickel au fur et à mesure ngay dem ñi muy gën di nickel donc tey li fi nekk yëpp ñu fi jaar aussi am nañ si wàll parce que bu fekkoon ñoom jaaruñu fi woon ñoo fi teg lu tax tey ku ñëw mën a continuer donc loolu am solo la donc di remercier ak gërëm ñëpp képp koo xam ne mos nga ci jaar teg sa loxo wala am wax ci wala def si dara sax ñoom ñëpp ñu ngi leen dañuy am dañuy am seen seen gërëm donc ñu leen di gërëm ñoom ñëpp di leen remercier si jaar bu ñu jaar tey Leewtoo ba Leewtoo mën a teg yenn jéego yi. ma ciy nuyu ñoo xam ne defe naa ne maag ñoom nekkandoon nañ fi ndax ma nekkoon naa fi mën naa cité te Ndiaye. Talla Ndiaye Talla Ndiaye Ndeye Kumba Fall sa Aïcha Faye yow Babacar donc aw Maroon Pape Maguette Asi Gaye ñoom ñëpp suñu nit lañu parce que. ànd la li cadre liggéey la nga bokk ñoom liggéey à un moment donné peut-être du ñàkk parce que kenn bi ñu ne éternel fi nga nekk donc mais on on on maintient les mêmes suñuy nit la ñu donc ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñu ngi leen di nuyu ak ñi fi nekk tey aussi. ma mais ba tey mbaa relation bi mu ngi nickel rek comme ni ñu koy waxee. waaw mais nickel kay moo tax ma leen di woo may wax seen tournée waaw man aw ma noon ma noonu rajo man sama bopp maa dul xooloog nit wala nit jàpp ma. pour man lu ma réglé rek bu jeexee jeex na donc parce que ba yàgg mii peut être sori nañ ma nag moom mais tey mi ngi nii toog ñi di di ànd ak yow amul amul solo parce que démb ngay xool doo xool lii donc boo xoolee dëmb rek doo doo am ak nit problème am na solo kon yàlla na yàlla def jàmm ah tàppe xol yi comme ni ko mam da baax doon waxee mais defe naa tamit ci côté euh, euh, presse bi foofu wax nga ñi fi jaar ak ñi fi nekk tey ñu ciy nuyu ñu ci fekk ñëpp ñoom nday Mbacke Ousmane Diallo suñu ah pël bi ak Kébé Mansour non Mansour moom suñu booy la ñoo ko formé ak kële nu mu tuddee si Yacine <laughs> Waalo moom bindikat bu xarañ la macha allah. Babacar fi Mbaye Babacar sama mbokkum bool bool. kenn Aïda. Aïda waaw ko man kooku laa tippoo ci Leewtoo Aïda Diouf. suma nit la wax dëgg yàlla nit ko taal bi suñu kër si di nuyu tamit Mourou Mané gentleman man ngi koy bu baax a baax di nuyu équipe bi yëpp mais tey Leewtoo dafa naa ne. même bu dul sax euh, ci côté euh, presse bi tamit làmb ji gis nañ ne ren wala boog daaw bi nga ñëwee ñëw nga ak combat bu am doole muy tafaatin booy ñaa tabaski daaw bi muy wàcc la woon suma ma juumulee ba bientôt léegi ñu jëmaat ci tabaski ndax korite ñëw na macha allah ba tey combat bi maanaam dafa mel ni nit ñi amaguñ ci lu leen leer ci kañ lay am ak naka lay amee ak est-ce que dina am. waaw mais <coughs> combat bi xam nga combat bañ koy tàmbali yow fekkee nga ko. donc novembre la woon. mu tombeek corona bi Covid bi donc làmb mënu am donc boo génnee tey période Covid bi yëpp boo ko génnee apparemment motagul un mois ou deux mois donc période Covid bi làmb amul communication amul dara amul maintenant Covid bi aussi ba léegi ñu ngi si mais li des bëreetul foog naa ne fii peut-être un mois mu jeex takk mais teewul làmb ji bañ koy tëgg aussi jëloon nañ ay précautions yoo xam ne sécuriser li ñuy joxe. def ko ba nga xam ne ni bés bu ñu ko bëggee tëgg du ñu am jafe-jafe moo waral tey contrat bi peut-être ñu ñu ñu bu ñu xaatim ak mbër yi ñu prévoir si benn réserve boo xam ne dañu yóbbu ba saison deux mille vingt deux bi mais incha allah avant saison deux mille saison ñu nekk nii dinañ ko si tëgg. maanaam di nga ko tëgg si saison deux mille vingt et un bi. incha allah rabi si kattan yàlla. Hmm. loolu wax nga ko mbër yi ba tënk ko. waaw loolu wax naa ko wax naa ko fépp wax naa ko mbër yi wax naa ko ba tënk ko ñoom. est-ce que dem nga au niveau du CNC pour régulariser comme ni ñu gisee yenn yenn promoteurs di ko def fan yi non dinañ dem incha allah après Korité bi nañ dem régulariser donc waaw jàpp date wax ni tel date ba officialiser date bi ñu tëgg incha allah. Mhm. après par la suite parce que gis nañ ci biir loolu bi loolu amee beneen beneen mbër bi amaat na fi beneen adversaire beneen promoteur beneen promoteur engagé ko muy booy Niang. waaw mais loolu c'est c'est c'est làmb dañ gis loolu moom du ñu ko bañ ci làmb. am am combat dem si ñëwaat beneen comba dans la discrétion kooku yaa yaa gën a si làmb. Hmm. mooy lu kenn dul yëg. waaw discrétion mooy lu kenn dul yëg ki ko tëgg ak mbër yi ki ko tëgg ak manager mbër mën nañ ko def ñu bañ ko fësal yooyu yëpp loolu yàgg na fi am mais xëy na bii jumte day am moom nangu ne dafa juum donc pour man jeex na. kan moo juum booy Niang wala kan. non Boy moo juum parce que moom laa sekkal contrat donc moom moo war a juum. promoteur bi ko engagé moom tamit gis nañ ko dafa mel ni nga am na loo génn wax moom itam mu génn wax mel ni foofu tamit am na benn genre malentendu bu fa am seen diggante wala. non waxuma pour moom man ba may wax mbër yi ma sekkal laa wax man waxuma pour moom parce que taxumaa jóg. Hmm. donc taxumaa jóg donc mënuma wax dara loo xam ne ci ci ci moom relation laa sekk ak moom mi relation jàmm ak salaam donc dama wax parce que li ma sentir laa wax maintenant bu fekkee ne da ko déranger aussi loolu mu am. mais mais est-ce que mu wax tamit ci benn côté amul raison ci ne ci ne yow jaaroo ci bunt bu mag bi da ngaa jaar ci porox la bi ñoom boppatoo làmb. te kii kii ça veut dire ça lan maanaam da nga xëy xëy rek nekk promoteur quoi par rapport ak moom wala par rapport ak ñeneen ñi nga xam ne. yàgg moo ci def si carrière bu mu ci def ñaanuma ko yàlla. ñaanoo yàlla. def si carrière bu mu ci def. Hmm. ñaanuma ko yàlla. ñaanuma ko yàlla yow xam nga. non man kay xamuma maanaam mënu ma def maanaam ça veut lu tax parce que carrière moom carrière tey mu ngi nii tey li nit ñi soxla woon yëpp mu indiwaat na ko tëggaat ko. non c'est pas un problème de soxla Sadio dama ne ñaanu moom moom carrière bu mu def ci làmb ji ak comportement yu mu ci wane man ñaanu ma yàlla di won topp ci loolu Sadio du du du référence ci làmb du référence ci promoteur pour que ñu suivre ko donc si loolu laay te dootuma ci wax. li nga wax dama ne dootuma ci wax wax ji moo wax ni doot pare naa ci dootuma ci wax. mais tey est-ce que amoo erreur par rapport ak sa combat nga taxawal ko saa nga dem officialiser ko au niveau du CNC est-ce moom tamit amul droit tamit namit bu gisee mbër bu mu ci soxla wala mbër bu bëgg combat mu tëgg la est-ce que moom tamit loolu du ay raison. waaw ma ci problème ak moom ñun si yowuñu contrat lu ko neex la daf man mbëri laa amoon affaire. Hmm. non moom affaire parce que signé wuñu contrat amuñu benn lien si combat bi man moom donc gisuma def ma dara ma metti man aw ma lu ma metti te aw ma dara lu ma def loo xam ne metti na ma man yoo xam man nit du ma def lu ma metti mais nit lépp mu def rek man prévoir naa ko. booy ñaa kañ ngeen mujj a gisante. booy ñaa si ñëw fii samedi ou dimanche si mu ngi fi woon ah samedi si kon waxtaan ngeen. non amuñu problème cest nit mënu ma boole ak booy ñaa wala boole ma Tapha Tine parce que ay partenaires lañu yàgg neen Tapha Tine lu ñu sek booy ñaa dafa lu ñu sek teraanga la ñu sekk. est-ce donc ñoom ñëpp samay samay samay suñuy partenaire suñuy frère lañ donc amuñu kenn lenn lu mën a am problème su diggante amu ci te mos ci am ah, mais côté Tapha Tine tamit gis nañ ku mel ni nijaayam di ay ma entraîneur am ñoom tamit ñu ngi génn di ñaxtu parce que ñoom it jàpp nañ ne mbir yàgg na lool ni daaw ak ren. waaw non loolu man euh, Babacar contrat bi ma koy signé dama am interlocuteur direct mooy koo xam ne moom laa ko sekkal kooku laay waxal mais ñeneen ñi moom sekkuma kaa ñoom. donc du ma tonton non du ma tonton ak ñoom interlocuteur bi laa sekkal mooy ki nga ñëw signé ak man ak mbër bi ñooñu laay ñooñu ku si wax naa la tontu parce que ñooñu laa sekkal maintenant keneen kuy nekk di wax am nga si droit wax mais du ma la tontu mais boo dépassé les bornes nag ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu remettre la sa place. Mhm. ana Thioune ak Tapha Tine gis nga déggante ñoom. non Thioune est-ce que ñëwu fii vendredi vendredi fii la Thioune ñëw c'est-à-dire ñoom ñëpp dañuy ñëw fii dañu gisante dañuy waxtaan donc amuñ problème. nit ñi xëy na ñoo jàpp ni problème waaye amul benn problème boo toogee léegi mën naa woo cuñ sa kanam nga ñu amuñu benn problème non ban problème moo ci amul problème li nekk ñoom ñoo signé contrat xam na li nekk contrat man xam naa la ci nekk moo ci am solo mais comme le contrat est confidentiel du loo xam ne tey jii war naa ko mën a wax publiquement wala ñoom mën nañ ko wax publiquement mais ki nekk yow li nga signé ak li nga nekk si contrat bi nga ko te contrat yi nag moom moom moom moom mooy mooy def fois diggante nit ak nit ak diggante yoon parce que tey jii contrat ñoo xam ne ñëpp con xam ne ni contrat yi ñuy signé si pré contrat yi ñuy signé moo gën a valable sa contrat yu dem CNG. mais bien sur parce que contrat yi ngay signé nit ki du contrat nga yóbbu CNG tey di nga signé ni 100 millions wala 200 millions fii 200 millions doo ko doon déclarer CNG. mais même bu loolu amee tamit mais CNG ak lu mën a xew da di biir fa lay mujjee moom même boo fa signé wul waaw. CNG c'est pour régulariser pour taxawal sa sa com pour sa combat nit ñi mën a bëre parce que structure la nit ñi mënuñu bëre te amuñu structure bu leen couvrir comprendre nga mais contrat fu nekk yow bu la neexee léegi signé contrat location ak CREC bu la neexee signé man beneen contrat mais contrat boobu mu ne man contrat bu baaxul yow mën nañ sekk leneen lu dul mbër du làmb ñu signé contrat fi ak yow. mbir yi daal noonu la demee daal. waaw ah, mais noonu la demee kay. waaw ñun daal ñaata ñaata ñaata at man maa mujjee ñëw si làmb ñu gis ñu gis ñu ay daal diggante bi liñ ciy ñaan daal nañu xam ne Sénégal la rek te ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñëpp mbër yeeg promoteur yeeg amateur yeeg reporter yi ñëpp benn lañ na rafet daal. buñ diggante. waaw non seen diggante yéen promoteur yi. non man aw ma problème xam naa loolu mais xëy na bu ñu ne du problème mais xëy na comme de noonu nga ko waxee malentendu bu am wala nangam sangam jàppal bàyyi laa wax du ma la tànde ah, li nga gëm nga wax gëm constaté ko laa wax mën na neex ay nit mën na ñu mu neexul mais àdduna noonu lay doxee mënoo wax lu neex ñëpp àdduna mënoo wax lu neex ñëpp mais boo koy wax wax ko si si yar ak teggin te si yar ak teggin laa ko waxee léegi am na leen loo xam ne déclaré woon nga ko muy combat Garga ak Sa Thiès combat ba tamit lu tax mujjul taxaw ba Sa moom mu mujj am beneen kom adversaire non mooy lu ma ne bugguma sa dugg si détail yooyu c'est-à-dire aujourd'hui am yoo xam ne boo si duggee da ngay versé aussi si li nga xam ne moom mooy terrain wu nit ñi donc bugguma dugg si terrain boobu du versé parce que xamewuñu ma loolu waaw donc boo ñu wax moom nañ wax leneen loo xam ne bokkut ak loo xam ne vraiment touché na yenn yenn yenn yenn détails yi ba tey ba parce que ci ci ci làmb ji laay jeexal ak yow mais tamit comme ni nga ko waxee da nga fi yor personnel bu doon liggéey fii ay nit ñu fi nekkoon di liggéey te bii am na ñu fi jógee am na ñu fi resté yaa ngi dégg mais bi jóge bi amee am na ci ñenn wala kenn koo xam gis nañ ko mu génn wax muy Ndeye Coumba Fall defe naa seetaan nga interview bi mu defoon am na mu waxee loolu bi nga seetaanee wax bi loo yëg ak loo gis. non man est-ce que déglu naa ko déglu mu quoi nit dañ ma ko rapporté rek. dañ dañ ma wax nit diw wax ne yow wax ne li mais c'est normal xam nga nit parfois nga génn def sorti wam da ngay juum nga wax xëy na peut être réfléchir wala wala wala wala wala nit xelalul mais moo tax ma ne sànq bay wax ma ne démb dafa dafa war a nit da ngay fàttaliku démb c'est très important nit même boo fii quitté di jam say condition après yow jàpp nga ne neexu la dañu jàpp ne ñu aussi si yoon loolu nekk parce que loo boo ba yow Covid bi ñëw les situations soit difficile am xam ne moom moom ngay moom ngay moom moom ngay def maanaam nit ki ne xëy na moom mu nekk à sa défaveur à sa défaveur neexu ko mais même bu la neexul balaa ngay wax da nga war a tourner sa langue cette fois wala ut ay conseil nga xool nan nga war a mën a sorti parce que ma jàppoon moo ko jàppaloon dara du ñu wax sànq ma koy mais jàppalu ma ko dara te foog naa sekk li moo ëpp li mu li mu li mu li mu nekk di wax li ñuy sekk moo ëpp moom bu jàppee dara li ñuy sekk moo ëpp lu mu jàpp ndax fii to amul kenn ku fi nekk ko xam ne amoo taxawum la taxawu entre mag ak ak amul te li am fii amul si benn entreprise waaw loolu moom mën naa teg sama sama loxo ci kaamil. waaye DG. mën naa mën non dama liggéey comme yéen dama liggéey si entreprise yi dama liggéey si entreprise yi comme yéen amul benn agence de presse buy ñëw di jox nit. ngay restauration gérer la boo feebar mu jël la en charge si xaalisu boppam amul dama dëgg la bu ñàkkul yow yow mu nekk nee ma nee ma amul. Eh, non non man moom man moom man moom man moom du ma wax si. moom sama employé man man yërëm moom sama employé lu ma ne am amul ñu koy def de mais néew na si ñu koy def donc nit da nga war a fàttaliku da nga war a fàttaliku démb c'est-à-dire relation yi te war a continuer di baax parce que ñëpp ay jeunes la ñu te àdduna yemul tey comprendre donc tey Babacar mën naa tey bu fekkoon am na lu ñaaw suñu diggante tey xëy na doo fi ñëw comprendre nga tey yàgg maar bu defee lu ñaaw loo xam ne tey ji mënoon naa ko jàpp wala dara xëy na tey ju fi ñëw mais day am esprit de dépassement ne peut-être xëy na moment yu mu toll noonu si beneen état la nekkoon mais état boobu bu jeexee bu toogee dina xam ne jaru ko est-ce que comprendre parce que lépp fii lañ koy bàyyi donc relation loo gën a mën a defar ak nit mu baax mu baax nga nga ngeen continuer ci loolu parce que ëllëg mën nga ma jëriñ ëllëg ndey kuma boobu mën na ma jëriñ te gisuma la lañ ko def lu tax muy génn di wax wala dara pour lan pour tilima yàq deru nit wala dara amul amul sens. amul sens daal am na solo loolu leer na euh, ba tey bu ma continuer ak yow si làmb ji laay ñëw léegi dafa mel ni Leewtoo tamit gis nañ ko muy tëgg ay mbapat gis nañ la fii Joal gis nañ la fii ban dëkkaat am na beneen dëkk boo fi demul après Joal bi ah. ndangaan voilà ah boobu sax waroon naa ci maa ngi jiglu tax ñëwuma ca empêchement bu doyoon waar la mais Ousmane mais waxoon na ma ko te itam xam nga mooy loolu eh, eh, lul seesen tamit war nga fa dem yaakaar naa su ma si bisu tabaski ak lendemain tabaski bisu korité ak lendemain korité no hmm. non mbabaju moom je pense que ñun tëgguñu ko mbabaj bi Leewtoo moom moo koy moom moo ko moo ko moom <coughs> moo ko jël en charge mais am na amateuru làmb yi nekk suñu biir yoo xam ne amateur lu simple lañu bokk Leewtoo donc ñoom lañ koy tëggal donc ñoom bu ñu soxlaa fu ñu soxla ñu jàppale leen si tëggal leen ko loolu moo tax tey Leewtoo nekk si mbapat bi waaw. loolu moo tax koy def. waaw ñu koy def. saison ren bi fas ngeen taxawal yeneen combat. bon xam nga saison ren moom daje mooy ko mooy compliqué déjà bi posé wu na problème daje bëri na ministre bi xëy na nee na dinañu dina fexe nu mu jafee Ibamar nañu tëgg fa pour ñëpp mën a jeexal saison bi. nañ ko moom Ibamar ubbi na ko. waaw donc loolu c'est officiel si c'est officiel moom. donc waaw donc ça veut ni bu fekkee ni daal xaj nañ si dinañ tëgg beneen làmb mais li nga xam ne pour nga am saison bu normal normal je pense que saison deux mille vingt deux mooy gën au moins Covid bi jeex ñu xam ne fii lay commencé fii lay jeexee. Hmm. Euh, tey looy wax sénégalais yi nga xam ne ñu ngi lay suivre ci Equivox TV waaye man nag leen moom du ma la ko nangul moom. maanaam comme li nga wax ne moom eh, entreprise yëpp moom xaw ma noo ko waxee noo loolu DG du ma wax ba <laughs> man nag xam naa nit ku baax nga loolu moom dama koy wax parce que léegi wax naa ko te fekke woo ko ne naa daal xam naa ne yar xam naa ko ci yow parce que tamit boo dee sa loxo ndijoor ngay laloo am nga yar jox nga doomu aadama ciir waaye nag ah Equivox su neex na de DG. mais dëgg ñëpp mais dëgg ñëpp mais dëgg ñëpp ñemewuñ ko. kër waaw kër Equivox su neex. dëgg moom ñëpp ñemewuñ ko te dëgg. mais ba <laughs> da ngaa réew. <laughs> way waa li ma xam mooy li ma lay leer mooy too neex na lool jaar naa fi waaye ah macha allah tamit Equivox su neex na de DG. waaw mais yàlla na yàlla na bu bule bi mais yàlla na yàlla na yàlla na kon ji neex non yàlla na kon ji neex parce que aussi seen seen seen seen patron nit ku baax la xam nga donc bu ñu nit ku baax la donc loolu la mën a xam waaw donc nit ku baax rek mooy xam lu baax di def lu baax pour nit ñi. loolu moo ci am solo donc ñu ko si encouragé mu gën a continuer gën a jàpp personnel am gën leen taxawu loolu moo ci am solo. Hmm. yow tamit ñu lay féliciter di kontaan ci yow di la balawaat ak rek encore une parce que comme li ñuy wax rek olof ak waral di wax ah, yoon jeexul waxusul di jeex liggéey ci bërëb jóge fa warul tax noonoo am man boo gëmuma loolu man Babacar dama pas personnel man dama gëm ne relation yi rafet rek des fois nag nit kii am fu mu toll parce que ñu ñëpp ay doomu yow mi des fois nga am noo waxe Ousmane mais noonu keneen noonu mais àddina moo tëddee noonu pour man ah. Mhm. waaw tu as parfaitement raison mooy ma wax relation yi moom lu mu gën di continuer moo gën di baax parce que ëllëg kenn xamu ko mooy ko mooy jëriñ moromam. kaajur liggéey la bu liggéey bi jeexee les gens restent des amis xam ne jaaroon naa fële sama waay la ba ma soxlaa mën a ñëw te tey bu ñaawoon xëy na doo ma doo fi ñëw donc mu rafet moo am solo mhm. waaw. sukar koor bi naa ko yóbbaale. di nuyu sukar koor ma war a jox suukar koor suukar balaa maa dem nii voilà déedéet non waxuma goros <laughs> kon kii Mansour suukar ah ma ginaar yu ma korité ji korité sax laay wax non ginnaaw suba la ginnaaw korité moom yoo xam ne dañuy yàgg joxe ginnaaw man laa wax man Babacar mii ah. tàggoo non du nuyu internet yi du nuyu amateurs yi du nuyu waa Equivox donc internet yu Equivox yi ñuy abonné Equivox yi ñi yëpp kii képp kuy suivre làmb mi surtout Equivox xewal Lutte TV Leewtoo euh, wasaare bu Assane Ndiaye Bawol TV donc waaw kewel info bu Fallou Ndiaye ñoom ñëpp dañuy sonn ci làmb di ci liggéey dépense xaalis jënd matériel quatre appui waaw ñoom ñoo ñëpp donc mënuma leen lim ma limee juum mais ñoom ñëpp dañu da ñu ngi leen di gërëm donc ñu wax ni dañ ko continuer liggéey bi métti na mais je pense que ni ñëpp da leen jàppale ba ki nekk li nga si séntu li nga si investir nga mën ko nga mën ko jot. di nuyu amateuru làmb bi tax ma aussi ñu nekk ci làmb ji. di nuyu waa Sénégal kontaan ci yow kontaan équipe bi nga àndal.